man Sidi Ngiraan lañ koy wax dal bi moom mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi nekk dalu waa Njëree ñu gën xam ci kër Bakar daal waaw dal bi mën naa ne bii mooy ñaari at mi soog a teew fii nii ndax feneen lañ daan dal daal mais ñaari at yi dañoo changé ñëw fii nii ndax fii moo gën a yaatu waaw te fii moo gën a moxtaare waaw ñun moom chaque année nii lañ koy defee daal waaw berne comme loolu la ñu xamee moom dañ koy waaw noonu lañ koy jàppoo saa su rek waaw bëgg gan ñi kontaan. xam nga dugg ceeg bisimilah rahmaani rahim génn seeg alhamdulilah rabbil alamin waaw maanaam di di gën a ñaaxaat gars yi rek waaw di gën a ñaaxaat ñu gën a jàpp ndax sa saa saa su nekk sagaat dañuy gis ne yokkute mi ngi am kon dañuy dañuy gën a jàppaat waaw dañuy gën a jàppaat bu baax a baax ndax uh, at bu ñëw rek day gàcceel bi fi jàlloon waaw mais lépp nag ci président bi la quoi waaw président bi de ba mu tàmbalee ba léegi mi jàpp waaw nekk ay xale yombul. mais saa su nekk moom dañuy conseil di ñu gunge di ñu jàppale ci lu bari waaw moom daal bokk na si ñu ñu yokk jom daal waaw. mbokki daayira bi maa nii bu baax di leen siyaar di leen bëgg di leen baalax di leen baalu àq di rafetlu tamit yéen seen taxawaay ak ñëw bi ngeen ñëw fii ci ba ci dal bi parce que tamit loolu yëg rek moo ko man di leen rafetlu bu baax di leen ñaanal ngeen gën a jëm ci kanam di sant tamit waa dal bi parce que tamit président la mais du question ne dama leen a mag waaye dañu yëkkati lépp. jox ma ko liggéey loowuñ ma dara lu may ni ma toogal di ñu defal nii waxal nii depuis boobu ba léegi nag tamit xaw na yàgg mais à chaque année rek ñuy gën di avancé à chaque année ñuy gën di avancé nga doon dal fële jaalo dañoo dem ba foofa daa xat moo ñu waral mu ñëw fii biñ commencé fii ak léegi nag daaw la ak ren wax dëggal bañ fi commencé ak léegi macha allah gone yi topp sama gannaaw tamit ñëpp macha allah di leen rafetlu jigéen ñi tamit ña nga ne macha allah ñoom ñëpp ñu ngi defar dal bi ñu ngi rafetal ñu ngi def muy neex daal di leen remercier bu baax di leen wax rek ñu gën a góor góorlu gën a yokk seen loxo gën a am jom tamit parce que am nañ jom trop trop mais maa ngi leen gën a remercier ñuy gën a am jom gën a avancer ca kanam gën a rafetal di nuyu ñëpp nag di siyaar ñëpp xëy naa dama mënta wax mais mën naa bëgg naa wax lu ëpp lii mais maa ngi leen di rafetlu lu bëree bëree bëri di nuyu ñëpp. macha allah gàmm gi neex na. ah gis nga xale yi rek dañ maa jiital teg ma si yoon yi ah man ma jiitu rek nangoo des nekk seen kanam rek di leen ñaanal ak fan wu a ànd ak wér di ñaanal waa réew ma nag ñu yokk ba yokk ko di ñaanal xale yi tamit ñu yokk ba yokk ko rek yal na yàlla def xéewal gàmm gi neex na ñi tardé maa leen ñaanal bu déwénee yàlla nañ mën lu ko ëpp rek yàlla may leen xéewal ak sutura yokk ba yokk ko waaw di ñaanal suñ mag yi yàgg suñ kanam yàgg ñoo jiite. ñu nekk suñ kanam ñu nit di leen teeta rek di leen jàppale di wax xale yi nag ñu góorgóorlu bu baax te xam ne ñun jàll nañ ñoom ñoo fi des di leen ñaanal fan wu gudd wu ànd ak wér waa kay jërëjëf. wax ah, nga dëgg loolu de moom dëgg yàlla danañ ci sawar torop ngeen ñu ko laajee ndax dëgg yàlla gàmm gi moom yëfu yàlla la la ci waaye def ren bu sewee ne yaa ngi sañoon boo sañoon di nga ci def lu ko ëpp te wax dëgg yàlla organisé bi moom. mos a ñàkk jaar yoon waaye an mu nag tànk kanam la am an mu ne ñu gis changement bu bokkut ak biñ yore woon ndax wax dëgg yàlla xale Pastef fu nañ daanaka organisation yi ci ëpp xale yoo ko yore ñooy def seen xaalis ñooy organiser ñooy ndugg ñooy def lépp ñooy jënd lépp ñu jox ñu ne ñun togg te wax dëgg yàlla ñuy def amu ci dara luñ ci man a wax ndëgg mi doy na organisation bi jaar na yoon wax dëgg yàlla tooguñu ñu ngi liggéey ñu ngi ba lay def seen xaalis fii daal lépp jàmm ñam yi doy ah amuñu benn problème bu nga kër gi dafa yaatu fu la neex raddax ni ko lépp jaam ñi ñaanal ñi nga xam ne ñoo ne ca kaw te dañuy jàppale ba lépp mën a yemb borom yokk leen ba yëkk ba déwén ak jàmm ñëpp gàmm si ci barke Seydina Mohamed ñi nga xam ne ñoo ne ca kër ga yi te mënuñoo ñëw ba déwén yàlla may leen ñu ñëw fekkee lépp te yokk nag ba yëg ko tànki kanam rek amul tànki gannaaw macha allah <laughs>